nee naa leen su ma munee taxaw di wax ginnaaw yàlla ak moom la muy Lamine Samba papa ñu la lay nuyu. waaw bi ma gisee lii damaa kontaan trop damaa xam ni butéel bu nekk la ca biir la kubéer bi di xeeñ te yow maay sa papa nangu naa ne maay sa papa maa la jur. nangu nga ko te it maa la yar. su ma la gisee nga yef ni day mel da ngaa delloo mbàtt ca la rek kontaan naa trop. papa ñu tey nan nga gisee lamb ji nga xam ne Assane Ndiaye Euh, daf ko tuddé ministre sport Makhtar Ba lo ci wax. et puis exclusivité bi moy maa ngi soog a arène nationale tay maa ngi soog a arène nationale tay dama ko doon dégg rek kon bu li amé man damay contane damay bëggee parce que li ñun ñoko momal suñu bop déggoo légui maa ngi wax bour gewer bu euh site internet bi neko bour mu ne ma naam ma ko moment bi ñu toll ni dañoo wara happy. parce que am nañ suñu yëfu bopp mu suñoo am suñu yëfu bopp ku mu neex def lu neex ku mu neex indi 10 litres ku mu neex indi njaq ku mu neex jaar fu neex parce que arène bi ñoo ko moomal suñu bopp mhm. waaye buñ ko yàq nañ ko téyel suñu bopp parce que ñun ñoo ko moom waaw ñun dañoo gaaw a yàq ñun njabootu làmb dañuy jiit ne dañoo bañ a yàq nañu bañ ba bu ñu lekk suñu jëw ba paré entretenir ko goudi ak bëccëg suba ak ngone ñukoy entretenir parce que ñoko momal suñ bop suñ nexé teug lamb altiné talaata aljuma samedi dimanche bés bu nekk ñu teug lamb ñoko mom ah. papa lang non asan mom sama way xam nga légui ni dans 15 à 10 minutes futur Médias commencer direct kon ñun ñoko mom suñu lamb la asan mom sama asan sama fuma né mu ne fa ah. bëggee sama jarbaat bëggee sama jarbaat kontaan naa ci yow. ñu gis ay affiches taxaw bu ci mel ni euh, Lac de Guiers Boy Niang 2 ñu gisaat beneen affiche bu ñu naan fan yi war na taxaw diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux ñi naan Siteu Ama nga foog ni combat ban moo ñor ci pour l'instant ban la Sénégalais pour man pour man Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène Gris Bordeaux Ama Baldé dañoo war a bëreet seen biir combat bu taxaw foofu baax dañoo war a bëri seen biir cercle la dañoo war a bëri ci seen biir. Sénégalais yi nee na li ñor mooy Eumeu Sène ak Balla Gaye la ñu moo gën a ñor. moo gën a ñor moo gën a ñor mooy xaay am na fi. mbokk yi sama papa laa nekkaloon.